waaye nag dama ci ànd ak sama yaay Rama docteur yu jéeg ji ah, mu daal di nuyu rek mbokk internet Sénégal set yu koy seetaan yaay booy nuyu naa la. fay naa la dama cee na di la nuyu di la ziara di la wax ne la sa grand bu rafet na xam nga nii dama dama bëgg yi. waaye yaay xam nga tey jii tubaarkàlla da ngaa bëgg Sénégal set ba tey ay couleuru Sénégal set dañ cee jëlee yenn rek. daal di koy mhm. jël daal di koy sopp. waaw bëgg Sénégal set rek. macha allah waaw da ngaa def zone bi ba mu neex la. daal di toftal ko ba mu saf sap ba mu saf sap dend ak sama sama sama arbre de Noël fas sama kanam def suñu sapin bu am def sama dend ak sapin le Sénégal set a mën kay moo mën kay moo meilleur moo meilleur moo risque kay kenn du Sénégal set kenn <laughs> nuyu naa la bu baax ziyaare la waaye jox la sa wàccuwaay di nuyu téléspectateur Sénégal 7 yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare waaye di leen jox seen wàccuwaay Ramatulaay docteur Dieg di seen conseillère matrimonial ñëwati nañ tubaar fakal la macha allah yàlla nañu yàgg a ñëw yàgg leen a émission yu neex ngeen di apprécier waaye kontaan nañ ci yéen de nuyu naa leen jaraa boot waay waaye yaay eh, tubaarkàlla nag tey ji boo xoolee plateau bi mhm. xam loo nar tey li ñu nar bari na tey jii nag li nu nar bari na nag danoo nekk ci fin d'année. Mm-hmm. fin bu jotee ñëpp dañuy amélioré tey nag Sénégal set tubaarkalla macha allah émission Jël Jëli dafay am wàll bu baax a baax waaye tey lañ leen di wan suñu bopp ndax boo leen xoolee suñu table ju yaa ji. Mm-hmm. lépp ngi fi tey dox daje la tey danoo ñëw rek daal teg suñu marché. Mm-hmm. tey danoo ñëw daal indi suñu foire. tey dañoo ñëw daal di indi loo xamante ni jeeg gi nag ñëpp toog bu ko kenn raté na ñëpp zappé site internet bu mag bi la di Sénégal 7 waaye nag euh, noonu laay doxee rek daal di nuyu nga xamante ni euh, mooy Mami Sañ Mami Sañ mu koy nuyu bu baax euh, sama chéri sama xarit Mami saltige bu mag bi maa ngi lay nuyu tubarkalla macha allah xale bi nga xam ni yaa mën yaa ëpp doole yaa gën a féete xale ñàkk laa mën a gis wóorul na la ñëpp di daw di xoolee la sama waa ji kenn du yow ci mim réew ak fi jamono toll mm. ah sama waa jooju nga xamante ni chéri dafaa Jaw sama xarit bi yow guddal fan rek ak wér yaay noonu la ne daal di xuusee rek dugg ci li nga xamante ni moom moo di thème bi mhm. thème bi nag tey mooy jeng ku ne xam na ni jeng baaxul ci góor mhm. waaye jeng baaxul ci jigéen mhm. ku xam na ni jeng li ci yàlla wax ndaxte nag dañuy topp li nga xamante ni moom mooy sart yi ci sëy ndax looloo ñu fi tax a toog góor gu jeng nag yàlla nañ ci yàlla musal waaye léeg-léeg nga gis góor gu jeng baloor boppam waaye léeg-léeg nga gis góor gu jeng ba àdduna bépp xam ne dañoo jéng dañuy bàyyi suñuy sama yaay Rama docteur mm-hmm. Jekki mu daal koy décortiquer ba mu neex yaay góor bu jéng macha allah thème bu am solo mm. thème bu amati solo sax laay wax mm. ndax ñun macha allah yu solo rek la ñuy wax maa la ko wax waaw ba tax na looloo waral ñu dinu topp macha allah yal na janam yal góor bu jéng mm-hmm. góor góor ñu jéng ñu de dañ daan wax naan bu yombal xiyaame ku ci jee ku ci dekk nii ngay def côté ngay doxe sax maa ah, gisoo góor ñu weng ñi. ñun ñëpp amee nerf sciatique. góor ñu weng yi ci ñi ci réew gis nga. nerf sciatique leen wengal noonu yaay te danoo weng nerf sciatique ne leen comme que yéen weng ngeen ba jeng may leen ma ma ñëw am ci yéen place. waaw. Mhm. daal di leen gën a wengal. maa la wax lool. waaw nañu bàyyi ci loolu xel bu baax a baax a baax. Mhm. ñu ngi commencé wenge fii. waaye yaay lu tax góor di weng. te fee lañu war a. di jeng di jeng. Mhm. xaayaan ku dégg séeréer. góor gu jeng. dafa bari góor ñoo xamante ni si. seen nafsu lañuy ñuy topp mm-hmm. dañuy topp seen nafsu mm-hmm. seen bakkan fàtte jeeg ba nga xamante ni si moom lañu àndaloon démb ak bërki démb mbaa xam nga ni góor dana jeng sax ñeenteel ba ba mujjee takk mm-hmm. góor dina am ñeenti jabar jeng ci aawam góor dina am ñeenti jabar jeng ci ñetteelam mbaa mu jeng ci ñaareelam ndax dañ ne bàkkan jàmm la bëgg bu ko mënee am aha ñoom boobu foofu looloo waral góor ñi di jël loolu di ko di ko def arma mm-hmm. naan góor biiram la am ak naqam waaye góor biiram la am ak naqam ak naqam loolu lan moo ko signifié lan lay signifié lekk gu neex nga koy mm-hmm. sol ba mu fees mm-hmm. mooy biir bi naqam mooy nga nangoo ko jox yow sa bopp di ko ko jox tubaar fa la muy dem ba mu baax ñaari naqa yaay bombante moo waral góor biiram la am akum naqam dañ koo rafetal. maanaam naq bee tax mu jeng. moo tax ñu naan góor biiram la am akum naqam. kon ca naq bala jeng. Ah, naq bala. <laughs> naq bala yaay laay waaw. Mm-hmm. dafa am góor ñoo xamante ni si nañu ma baal ci ñu ma ko war a wax. dañoo topp seen bakkan ba fàtte démb ak barki démb xam nga lu waral ñuy wax tey ci jeng mhm. dangay ànd ak jigéen ba dara du dara tus du tus rien du rien yoroo suukar kafe boo jëndee kafe bu juróomi dërëm mooy jënd suukar mhm. ñaar dërëm dëgg la dix franc nga suukare ko ngeen bokk guux mu guux nga guux de lii bëru mburu la mu xàmp jox la nga xàmp muy jeex nga ànd ak moom ca ca 15 10. xam nga luy 15 10. luy 15 ñetti dërëm tooñaat dërëm yaa ak moom. ca 15 10 ngeen ànde woon. dëgg la. ba dara du dara laa la wax. Mhm. tus du tus nga ànd ak moom muy jóg di daanu daanu ngeen di jóg di daanu. ba yàlla dogal tey ji yàlla mu ne la gan nga samp kër bàyyi ba mu màggat gis nga góor terewuñu ko mu am ay jabar mm-hmm. waaye na yamale yamale boobu de lañu defatul yaay na yamale mm-hmm. xanaa xamoon ne yamale boobu sax mënta ne waaye nëbb ko ndax ku nekk ak kii sa soir ku nekk ak nga bëgg ku nekk ak ki ki ki sa bopp ku nekk ak ka nga ka la yërëm. waaye ñu bañ koo fésal. waaye ñu bañ koo fésal. léegi nag yaay daa mel dañ koy fésal. dañ koy fésal ba mu fés boolee di ko wax. man wax ngee ma ci gën a naqari ndax dama ne bu fekkente ni si danga ànd ak sa jabar. Mhm. ngeen di jóg di daanu. muy jaay gerte yow ngay dem di menee boru ba ñëw macha allah am ab paak war koo mën a tabax. mu teggit na tam jox la. Mhm. booleeg di togg di yóbbu ca chantier ba booleeg ndox mu fa nekk moo ko yanu def ko ci ay bërigo ñu ko ci ay bërigo ñu kuulee ko muy togg di indi mu def macha allah def ay saraxam ba kër ga taxaw mu ñëw dëkk dëkk ak njabootam te booba planning xewut wa ilaa buy planning nga boole kook ay mbokkam ni ko takku ma jabar joo xamante ni si dangay planning da may jural. muy jur rek jur rek nga di ko nax. Mhm. naan ko yow laa bëgg nga doon sama yaayu doom. fekk li ngay wax gëmoo ko. moo gëmoo ko. am nañ ci yàlla musal. yàlla nañ ci yàlla musal. góor gi wax lu lu mu gëmul yaay góor gu gën a gën a méttee nekkal. ak a góor goo xam ne yow moom da koy leer na li muy wax moom gëmu ko. waxatuñu dëgg de. te yow ci sa jëmmi bopp góor gi jàkkaarloog yow di wax ak yow dalay leer ni kii li mu wax du dëgg ndax xam nga lu tax. Mhm. waxoon na ko daaw wax ko daal jéeg wax ko ren kon tey jii bu ko mënum mu ne mais ci say nopp. dalay nax ba dalay nax. jëfewu ko. jëfewu ko. yal nañ yàlla musal ci góor guy wax lu mu dul jëfe. yal nañ ci yàlla musal ci ci lal. di tuur ndox ndox balaa kenn di tooy yow yaay njëkkaloo. waaw ci sa kaw boobu jógee yaay sa yaay summi sa tubéy. ak ah, ay dëgg. bàcc fa nga bàcc nal fa nga tëddoon def ci mos sa nal. Mm. kon kuy tooy. yow yow yaay tooy. waaye dangaa dangaa am foo duggoon. danga ni xale bu jigéen bi nga xamante ni root na ba ñu kuule wala mu root ba ñu fondement. waa mu togg ak njabootam defe ni jàmm ñëw na ah sama borom kër gi luye nañ dikk nañ ci tabax fanaan nañ fu ne waaye tey nag kër gi. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah maa ko moom nga na yaay. waaw. mu dugalal la jéeg jéeg ba ñëw nga daal di jéng ca kooka. nga jéng ca kooka. waaye xale bu góor boobu lan mooy àttee. ba pare xam nga lu ñu bu doon day jéng ca kooka. Mm-hmm. te du ko boole ki wax du metti mm-hmm. dama ne la wax dañ koy boolee la gën a metti dafa jaboot néegam bu ma fa tëddee saw di ma bëgg a rey mm-hmm. ah mënut dem nañ ba naan dafa foire am nañ ci yàlla misaal. Ah. damaa dégg góor gu ko wax. Mm. sama jabar dafa foire ku tax mu foire yow. yaa ko foire de. ndax ba muy planning nga boole kooki mbokkam boole kook àddina. mu mm. xanaa bëgguma sëyal. ay mbokkam taxaw say mbokk taxaw daane yow tamit góor bu ne daa bëgg nga sëyal ko daf laa bëgg rek. bu sañoon yaay doon yaay doomam mu naan waaw di xogale ko bu ma sañoon mooy doon sama yaay doom ndax li ma gis qualité yi ma gis ci moom. nga topp ci bàcc rek. ba mu foire. ba mu foire nga am xale bu tuuti jël ko teg ko ci kawam jeng ba ba wëndeelu. ca xale ba ca xale ba. maa la ko wax wëlbati ko naan xale ba lii ngay def da koo mën yow kii di mag. yàlla bu xale ba maaseeg say doom. waaw ay sufes. kii di mag li ngay def da koo mën ba pare xoole dafa foire. Mm-hmm. mënul dara. fekk dafa wasin ñu doof koy bassin ba ba ba ba ndiggam yàqu dëgg la yaay buy taabal jo ko xamul ku ko ñamul mënoo koo xam dégg nga ko te ko ñamul dégg nga ko lépp muy daaw sa bànneex tu puusal ji ci taabal rek jar na ji góor fonk jigéen barke alxuraan moo rang moo rang ba ca kër sër nag maa la wax nga yeewu rangi kër sër doo tala lekk doo tala naan foofu sa doom di kam-kameeg moom am xale yoo xam ne da leen di yóbbu dañuy sax ñu jëli fa weneen jàngoro indil la ko nga gën a sonn te yaay jaay sonn bu nelawul yaay sonn maa la wax loolu lekkul yaay sonn nga boole di ko nax ak di neexal wëlbatiku di nax baayam ak di ko neexal bëgg bëgg ndam bëgg sa doom yi màgg ëllëg tekki mm-hmm. nga naan daa foire di yee jànk fi nga may yóbbu. xale ba da def nii zat tubaar fakkaala macha allah. yàlla bu maaseeg doom yaa waaw di def sër di la defal lépp loo xamante ni si jeeg da koo war a defal boroom këram rek mu di la ko defal. Mm-hmm. nga jénga jénga jénga jénga jéng ba wëndeelu. fàtte ni fii nga jaar ak xale bi kat jaaroon nga fa ak ak kii. dañ leen suturaal. Mm-hmm. nañ leen jàpp te jàppale leen. waaye jéeg ji nga xamante ne sii dañuy dem ba nekk mag ñoom it bàyyeeku nañ ko ba. bàyyeeku bi laay bañ de. nañ ko bàyyi bàyyeeku bi de laay bañ. xoolal ma nekk mag bëgg a bàyyeeku. dama ne. teguñu ko fenn. beñe bu tàng baa sedd ba benn la ñaar yëpp ay beñe lañu. dellul foofu. beñe bu tàng. Ah. ak beñe bu sedd ñaar yëpp beñe la. waaye léeg-léeg nga gis ko jël bañeem denc ko de defe ne cafka ga dafa sàlli. bay gën a nooy gën a neex. noonu loolu da nga koy décortiquer ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ndax dangaa wax ñaari biir. Hmm. da nga ne hmm. bu tàng ak beñe bu sedd beñe la. xaayaan man la la yaay léeg-léeg nit jël bañeem denc ko defe dafa yàgg wala dafa sàlli nga ni ma ca gën a neex. ca lay gën a nooy gën a neex. décortiquer loolu. mooy jeeg bi nga xamante ni si dafa sëy ba yaakaar ni moom bàyyi rek bàyyeeku doo nga ci des ndax fi ah bàyyeeku naa léegi xam nga ni moos man mii kat ak xale yi duñu benn mhm. waa li tax ba du benn yër du yër yër yër dong la ak numéro yër yër kese la mhm. da nga yor macha allah sa sa sa sa sa sa bant wala sa dara mu am turu nga yër yër bi nga yër fii moom yow mii nga yor sa téléphone bii wala nga yor carton bii mu am turu nga yër waa dangaa yër ma yër waaye yër bi nga yër fii ak yër bi nga yër fii du benn. dëgg benn la boo yër fii da ngay pattal sa bët yow bi nga yër danga nga ne nii semal sa bët ba mu sem kon ni nga jóoroo fii nga jóoroo fii kon yër yër rek la. beñe beñe la. jigéen joo xamante ni si danga ngaa sëy ba nekk mag daan ne saxatuma dara damaa sàlli nañu ma baal dañuy waxtaan. safatuma dara léegi damaa sàlli léegi kay moom ah, naa ko bàyyee xale rek nga bàyyi ko xale pour. Mhm. sëy bi da ngaa signé woon ne boo demee ba nekk mag danga koy bàyyee xale bi. Mhm. yàlla bu góor gi dese force am. Mhm. lu muy gën a màgg di la di ko gën a bëgg. waaw yow léegi nga jëm mag daan ni bëgg a toog naa ko bàyyi xale bi yaa ko ca jàllax. ba tax mu yeng wala yàqu naa. yàqu woo. da ngaa gën mhm. neex. waaye yaay ci kaatu yàqu boobu rek fa laay duggee. Mhm. ndax euh, jéeg ji kenn yàqootu. déedéet. ku defaru rek daal di gis sa bopp. waaw xam nga lu may bañ bàyyeeku. Mhm. xam nga lu may bañ yaafuus. yaay nag euh, tey ji xam nga ni ba lii amee ba léegi. bàyyeeku amatu déedéet kii mooy. poocee pooc. kii mooy. <laughs> kii mooy pisseur. Uh-huh. kii ba mu amee ba tey benn jéeg ubbeekootul. benn jéeg yàqootul ma tuddee ko puuc puuc. puuc puuc nga ko tuddee <laughs> ndax nii lay def. waaw waaw. Mm-hmm. priseur gi. Mm-hmm. kii yaay tubarkalla macha allah ñu tuddee ko piseur. Mm-hmm. piseur nag léeg-léeg nga dem ci docteur. mu xool sa kanam ni la dafa infecté. waaye bëgg naa nga jël di ko raxasoo. waaye yaay ci kaw rek ngay raxas bàyyi ci biir. te kii day dem ci biir. day dem ci biti. Mm-hmm. yaay dama lay jox kii nga daal ci sànni ñaari kàddu. Mm-hmm. ndax kii dafa am solo te jéeg ju bari xamuñu ko te duñ ko utiliser te lii jéeg ji dañ koo war di utiliser buñ ko mënti utiliser ñu contacter Daba Thiéna mu wax leen nuñ koy utiliser. Mm-hmm. yaay waxal ci bii dem ci bam neex. dañ koy décortiquer sax waxal wax leen nuñ koy utiliser. dëgg la ndax comme jàngale rek donc moo ñu fi tax a toog. dañ koy dañ leen koy wax en direct ngeen ko di ko dégg. ku ko bëgg daal di waaxu ba ci Daba Thiéna. waaw daal di ñëw nag daal ni ko damaa bëgg ci sax ci ci ci pii ci puuc yi mm. pii ci puuc man moom laa ko tudde li mooy pii ci puuc mm. kii ku ko gis tubaar fakkaal la masha allah jeeg naan damaa yàqoog damaa yaatu damaa nàngam déedéet dëgg la sa ndox tubaar fakkaal la ba mu nugg def ca yam ca yam ca àndal def ca yamuy àndal dafa am yu muy àndal nga def ko ci masha allah ni ko ñonkoos ak say tànk daal di koy def ci sa looloo tax keroog ñu indi ni jeeg buy sangu dafa war di toog ci banc mhm. wala muy toog ci chaise mhm. ndax faaw nga càpp say tànk am noo def di ko ca def tubaar fa kàlla macha allah di picc pooj mhm. mu lay raxas ba nga set wecc loxo lañ ne warul dem ci sa sexe warul dem ci sa kanam waaye ku xool lii waaye ku xool lii li ko big big big sax ko ëpp ku xoolee xam ne mën naa dem ci kanamu jeeg ndax ba. waaw te tubaab fa kàlla nga daal di set wecc nag. Mm-hmm. daal di tëjuwaat ràpp. Mm-hmm. daal di ànd ak sa jëkkër. mu liggéey ci biir lu bari. waaw lu baree baree bari. lu baree baree bari ndax am na foo xamante ni jigéen mënu faa yegg. waaw kay te fa defar defar du nga fa mën a yebal mu mën faa dem liggéeyal la fa lu am jom daal di génnaat ñëw toog. nga daal di àndaat ak sa borom kër mu daan ni waaye yow man damaa jaaxle. ndax yow dama laa takk macha allah am nañ 30 ans. wala de mariage 30 ans de mariage. Mhm. waaye bi ma àndaawaat bi ma àndee ak yow toujours dangay mel ni xale. kii koy def. dangay mel ni xale. Mhm. xam nga lu koy waral. kii jigéen day bëgg boppam. Mhm. bu fekkee nag macha allah nga doon mag saw yaram rafet nga jël kii poudre magie. poudre magie. waaw. Mhm. boole ko sa eau de roche. Mhm. boole ko sa euh, suukar. Mhm. def ci tuuti citron. parce que jigéen surtout booy jël poids sa yii day ñuul. sa xarante taaj. waaw nga di ko ci bomb. di ko ci bomb jël seen temps muy dindi gàkk gàkk yi. même bu doon da ngaa xeesal bàyyi xeesal sa yaram bi ñuul. wala rew yi noonu ñuul sax xoola dee ko jël. di ko ci bomb di ko ci bomb. ak poqotaan yeeg poqotaan ñuul yi. ndax des fois dafa am ñoo xam ni du salte mais ndoxum siti da koy def parfum da koy def mm-hmm. poqataani parfum bi lakk ko waa léegi bu fekkente ni si da koo lakk mm-hmm. nga jël ko bomb ba mu set wecc jël sa euh, pooc yi bomb ba mu set mm-hmm. daal di def kii ak am doole beesaat ñëwaat ànd ak sa waay donte dafa am cinquante ans wala soixante ans yow yaa ngi ci sa quarante cinq maa la wax loolu de 47 ans jàpp 50 ans. Mhm. da ngay beesaat tàq te toujours buy ànd ak yow da ngay gën a xam nga lu ñu war a def. yeewu jug toog. waaw ndax yaakaar naa sax ñu bëri yeewu nañ ndax ña doon nelaw. Mhm. danoo yeewu. dal ca kaw ñañ fa bàyyi ñu ñooñu jugandoo. ñooñu bëreet. dama ni benn jeeg yàqootul benn jeek sàgganeetul. déedéet. priseur bi tubarkalla macha allah mi ngi toj dëkk bi. ñu ngi koy toj utiliser. nee naa la da ngay jaaxaan yónni ko bés ko. mu raxas sa biir ba mu set raxas sa fa nga xamante ni sa loxo mënu faa dem mënoo ko faa yebal ba mu set nga daal di koy rocc nga gis salte bu nekkoon ci yow dañ lépp lu ubbeeku woon ci yow tëju mhm. am na jeeg boo xam ne da doon wax ne ma dama koo ragal dëgg la naan ma yii xam nga lii man dama koo ragal nangam ah. nangam ma ne ko ma ne mhm. ñun defaruñ ko de maa la wax loolu tubaab yee ko defar ah. te lu ñu defar jàmm jàmm jàmm ak salaam lu ñu defar mun naa ma ne ko dëgg la mhm. mun naa ma ko kon jëlal kii ak yi mu war a àndal mhm. dafa am nag ñoo xamante ni si dañu ëppal mhm. parce que dañuy jël tay jii lu ci mel ne nepp nepp wala lu ci mel ni am na yeneen produit yoo xamante ne si warul dem ci kanam mhm. buñ ko jëlee seyal ko mhm. def ko ci di ko pompe ci seen kanam pour bëgg a xat waxuñu leen mais loolu da indil problème dafa am yoo xamante ni si moom la war a àndal yi mu war a àndal boo ñëwee ci docteur yi jéggi koy am boo ñëwee ci daba ceena da koy am maa la ko wax bu ko defee mhm. nga daal di faju te liñ naan fagaroo gën faju faju nañ leen fagaru ba bu ëllëgee góor ni bu ñu àndee ak ñun. Mm-hmm. ah du ñu jéng. déedéet. góor bu ci jéng rek dañ la caa ba max. Pfizer baa ngi nii nag ku ci bëgg contactel dama cee la. Mm-hmm. da ngay woote ci 77 885 28 13. 77 885 28 13 woowee dama cee la da ci am. Mm-hmm. am ci ak amin bu yomb mhm. ndax nee naa la jigéen ñi rek lañ fi nekkal te boo ko amee la sa naqar dëddu la bu dee sa jëkkër dalaa wan ginnaaw dalay wan kanam bu dee dafa jéngoon tubaarkàlla day jubbanti ko ñëw ci yow dëgg ma la wut si la mhm. daal di focus ci yow mhm. kon ñàkk koo am wóorul xale bu jigéen bu ci nekk wool daba cee na ci 77 885 28 13 bu ko defee danga ciy am danga ciy am booyu ñu doxal danga koy am leen ji tey tubaarkàlla dafa alaa daw mi table ji dafa alaa daw mi table ji li fi nekk lépp a baax mm-hmm. xam nga dañu dañu dañuy waxtaan ci jéng daba mm-hmm. jéeg ji aussi bu ñu taayalati te bu ñu bàyyeekoo te déet bàyyeeku bi la nii bañ de li yu mm-hmm. lu nekk ak la ca xew sedd bi dafa ñëw ñu indi ay astuce femme jéeg bu ci nekk bu sa jëkkër génne xëy mhm. bala moo wàññeeku ngal la waaye na ñëw fekk lu sedd lu lu lu sufe sa sa sa borom kër sufe sa mhm. néeg dëgg la surtout yaay sedd bi ni mu commencé sax daa ñëw ak doole dafa ñëw ak doole te day gën a sedd mhm. ànd yi nga xamante ni si dañuy nelaw damaa bëgg ñu yee ànd mooy dëgg de doon yi nga xamante ni si daa dem ba dafa dafa dafa mel ni lu teg poussière ñu sotti woon ci ndox am na jeeg joo xam ne sax dañ koy xëcc ba mu ñëw ñu ko ci cam ba yaa ngi yàq sama <laughs> sama li sama xam nga xam nga dangaa war a laal góom bi mhm, góom bi laalu am na jéeg yoo xam ne danoo tayal am na jéeg yoo xam ne dañuy tëdd ci seen kawe lal di jafte mhm. am na jéeg yoo xamante ni dara ñoru leen dara bëggaju leen danoo focus ci salte rek mhm. léeg-léeg ñu yootu seen ànd def ci loo xamante ni yaay yàlla nañ ci yàlla musal dafa am. dafa am wax yaay yaa ma ko dafa am wala ñu bàyyi xale yi di fowe ànd ba. wala ñuy jël ndox di ci sotti. ndox ba ba doom ba dee. xanaa ah, xamoon ni doom day dee doom day moo tax da nga ne yéel yéel yéel doom rek sama xel daw ci loolu. doom day nelaw. Mhm. des fois nga ñëw fekk doom boo xam ne dafa am ay ay ay kii yu jaune. Mhm. ay gàkk ay ay ay doon yu jaune ak yooyu. wala nga def xeer yu sew yi ci nekk këriñ day am xeer. Mhm. këriñ day am xeer day am suuf. des fois da ngay yee sa ànd danga naan bërëb yëkkati sa ànd génn ko ci sa teg sa sa jël sa tame sunguf lay ko ba mu nooy nepp këriñ yu dee yi ci nekk yëpp da koy dind mm-hmm. xam nga lan moo waral këriñ yooyu këriñ yooyu euh, xal boo ci def mu fay. Mm-hmm. ànd bee dee. doom bee dee. doom dañ koy lay boo ko layee ba mu nooy nepp. nga yàng ko tubaar fa kàlla macha allah jël jël jël jël këriñ bu mag daal di koy jiital ci suuf boyal fourne ba mu fees tekki bàyyi ba ànd bi doom bi tàng jër nga suul. loolu tax ñu naan la cuuraay de ko teg ci xoola nga daal di koy suul. Mm. boo ko suulee ba nga xamante ni si amul benn li bu dee gowe gii ngay taal. lu ci ne ni gowe xooj wala gowe monsieur xam nga ne doom bu tool ni de tarkal la. ay gowe gi nu tudd. kii gowe gowe pane la. pane gowe pane dama ko pane ba mu neex. Mm. macha allah kon ni ñuy poulet pane. barke yonent da def gowe pane. xam nga dama ko ubbi rek fii foofu daal di toj. bu fekkente ni si gowe ngay taal. Mm-hmm. xawal def ni tuuti rek. yaa ngi sa ànd. waa léegi bu ko defee bët bi daal di puus puus tuuti rek mooy mooy xal bi. Mhm. nga ne ko ci teg daal di ko ci teg. muy suuf parce gowe. Mhm. gowe xooj. Mhm. dafay dafay wala gowe pane bi bi dañ ko xooj ba dañ ko xooj ba pare après pane ko. pour mu pour pour mu gaaw a génn. xet gi génn fu xet gi génn. foog andi foog xal bi waaw kay foog xal bi génn tuuti. bu fekkente ni si nag lu ci mel ne nàkk yii la. kii goudron la. goudron la yaay. toj na dëkk bi. maa la wax loolu. toj na dëkk bi. goudron lu ne la àttam. barke lu ne kay jaar ci kawam. àttam na lu ne. maa la wax loolu. àttam na lu ne kabi yooyu nga xamante ni tubaarkàlla. ndaraan yeeg lu ne. maa boo xam ne day sëf juróomi oto jaar ci goudron. waaw jaar ci bi du buuse du yëngu moo mën moo ëpp doole. Mhm. moo waral ñu duppee ko ko. dëgg la macha allah. Mhm. kii soosu kaani bi la. soosu kaani. voilà. Mhm. sauce vert baa ngi. maa la wax lii mooy sauce vert. bu fekkente ni si yi ngay taal. Mm-hmm. daba da ngay jël sa papier alim. Mm-hmm. daal di koy jël suul ànd bi. Mm-hmm. tàng na ba pare. doom bi tàng na maalax loolu daal jël ci tuuti teg ci bàyyi ci sa néeg. wala nga bàyyi ci sa douche muy génn. ànd yi sax damaa sopp ñu di ko teg ci salle yi. boo ko tegee ci salle yi daal di koy jël teg ko ci. day génn ci néeg bi bu ko defee dañ naan xet gi fan lay jóge fekk mi nga ma nga ca salle de te yaay sedd loo taal mu gilli. loo taal mu gilli. ndaxte sedd ci boppam moo neex. sedd dafa te jeeg ji sopp ko. dafa mel ne tey jii nga tëdd ci kilim rek taal taal taal taal cuuraay. ni muy neexee. tey nag yàlla indil la kilim waa yàlla indil la clim boo xam ñëw. waaw waaw doo ko ak sa dëgg dëgg. <laughs> baax na. jeeg ci amul woon clim rek fi mu ne clim ñëw na. jeeg ji exploité leen sedd bi waaye bu leen sedd bi mën yéen a ko mën fuuf ba ngeen ko paree du tey ba ñu ko paree du tey dëgg la dégg nga mhm. bu ñu defee yooyu yëpp ba pare mhm. ah daba déggal li tàngal meew laa ko tuddi laa miska ta gis nga kii mhm. jeeg bu ko xamul sax mënu koo jënd barke Cheikh Khalifa yaay lii lan la misk karaa gis nga bi misk karaa waaw oh. gis nga moom mi ci parti yi rek nga koy def. partie intime. voilà. Mm-hmm. ci sa yi. maa la ko wax ci sa yi. Mm-hmm. ci parti yu baax yi tubaab fakkaal waaye gis nga gis nga bi mm-hmm. day dem ba yow ci sa jëmmi bopp boo koy def ci sa parti yi siddit yi nii. day dem ba yow ci sa jëmm bopp moom ngay xeeñ. déggal loolu. xam nga foo romb bu ñu naan waaye docteur jéggi dangaa xeeñ neex wala dama ceene yow xeeñ nga neex de nangam nangam dara waralu ko kii ko waral. misk bee sëxëñ ci sa yaram kii mooy miskataar yaram yaram yaram yaram day saxañ jeeg yaay day saf jeeg day saf neex day saf jeeg day saf oh. nga def ci sa xola say keri nopp def fu ne mm-hmm. ñi ko xam xam nañ ko original yaay yii nag boo ko di jël ko rax sa muy jenge kon jeng gi ñu wax tey am na solo ñuy jeng nag waaw ci seeni jëkkër mm-hmm. ci seeni ci seeni jabar góor ñi uh-huh. jéng ci seeni jabar uh-huh. jigéen nga nga xamante ni yaa ngi ca kër ga di ko joor uh-huh. damaa bëgg nga seetaan émission bi te bëgg seetaane astuce yi nga ci gis jëfee ko jëfandikoo ndax dama ni la góor boo ko dee teral bu yàggee day rëkk ah. waaye muus boo ko tëjee ci néeg tëj fenêtre mhm. wàccee rido bu mhm. yàggee muus ma dalay attaqué dëgg la kon dañoo bëgg seeni jëkkër di xam nga ni foo ko jëfandikoo tëj bunt mhm. wàccee rido taal vase e bu yàggee sa jëkkër attaqué la gis nga góor lu jeng jeng jeng jeng danaan ay la yowén nag mënta ñàkk fii daraa ngi fi bul nekk ba màggat rek bul bàyyi màggatoo parce que cinquante ans dëgg la quarante ans. Mhm. màggatoo teel ngaa sëy. Mhm. d'accord jaboot nga am nga ay doomi mag. Mhm. mais nag bu mu tax nga bàyyeeku. déedéet bu mu tax nga bàyyeeku. yow bu fekkente ne si li ma wax ci commencement bi. ni la góor naqam la am ak biiram. yow yaa ngi sol ci biiram ba mu fees dell. macha allah bu la soxlaa fekk nga jël priseur bi defar sa bopp. ba mu baax jël yi defar sa bopp ba mu baax nga ànd ak moom ba mu neex. Ah? boole jël yu baax yi taal sa cuuraay lu neex. Mm-hmm. fer yaa ngi nii macha allah kii mooy feru jekk ah takk say fer. Mm-hmm. def sa ay def sa def sa sër yu baax sër yi yëpp duñ ko bàyyi. sër sax mag ñi dañu daan ak cosaan waaw mag ñi dañ daan nekk mag macha allah. Mm-hmm. waaye dañ daan def sër ngémmiñ Uh-huh. beeco lañ daan def firi ko daal di koy ñi walla ñu def tànk pi tax wala ñu def kii yooyu la tuddoon uh-huh. wala ñu kuppati ko defar ko daan ko jiitale suñu mag ñi uh-huh. dañ ko daan def suñu papa yi suñu maam yi daan ci kontaan ba daal ñu jeng waaye boo fekkente ni si sëy nga tuuti daan ne damaa bàyyi pour lan nañ leen ut ci yii. yaay nag sër bii sax ma sama xel daa am ci lu ma ko bëgg a tuddee. dëgg la noo ko bëgg a tuddee dama cee gis ay waaw dama cee gis ay signal. waaw. signal yi aju ci suuf. tudde naa ko ko la tuuti. waaw xam nga ni sër bi bu ko gisee. waaw gis yi lan nga ci suuf si télé bi signal bi dootul daw. waaw sëru Sénégal set a ngi noonu. <laughs> sëru Sénégal set. kon xanaa am couleur Sénégal kon dañ ko tuddee feru Sénégal set. jeex na tàkk. ah feru Sénégal set. ba pare xoola xoola mint yi ci biir. mint yi ma ko diggale. mint yi nga xam ne tàngal mint bi nga ko. <laughs> yaay ba mu neex da koy màcc. waaw bu la neexee da koy bàyyi noonu rek ñu gis gis fafa daal di toj. maa <laughs> léegi bu fekkente ni si nag yëpp daba def nga ko. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. def nga yëpp. Mm-hmm. jege sa jëkkër. yërëm ko boole yedd ko. di waxtaan ak moom di ko delloosi. bu takkee xale bu ndaw tamit. yow du la bëgg a ci. xam nga lu may bañ. jiitu ci kàmb sa genn ci biti. sa jëkkër dafa jeng rek nga daani damay daw du ma daw déedéet duma daw du daay gi nga jàmbaar dawul dafa daani daani doole te jàmbaar dawul dafa wuti doole dafa wuti doole léegi léeg bër bëree ci bëre nga ne mbër mi yàqu na mbër ma génnaat mhm. ba pare tiim ko mu a damaa bëgg a gàddaay defaru ji waat waaw waaye bu defaroo bu ñëwee nga xam ni mbër mi nga defaru ji na te ñëw na te bu ñëwee day attaqué day koñe day gañe barke yonent bi yaay booy jéeg ji bëgguma ñuy daw bëgguma jéeg buy daw bëgguma jéeg buy daay mhm. gis nga jéeg boo xamante ni si sa jëkkër dafa jeng ci mhm. xale wala mu jeng sax ci wuraan jàng ndax mën ngaa doon xale bu tuuti sa jëkkër am mag moo xamante ne si daf ko tóom tàcc. dëgg la. waaw te looloo fi bëri. xam jéeg boo xamante ne si allah xoolal jéeg boo xamante ne si dañu faaj fee palaasam. Mm-hmm. waa jéeg boobu avant muy doon jéeg xale la woon. Mm-hmm. amul expérience. dafa dem ba nekk jéeg am expérience. Mm-hmm. damaa bëgg sa jëkkër dafa jeng ci jéeg boobu. donte yow yaa doon aabo wala yaay ab ñaareel mu jeng ci jéeg bee. defaru mais tey defaraatal sa toogaay defaraat sa toogaay. Mm-hmm. defar sa bopp. Mm-hmm. dañ naan tuur bëggante àndandoo noo tàqali ko. dëggal góor gi la bëgg ba takk la. nga bëgg ko ba sëyal ko. dëgg mu xam la nga xam ko. Mm-hmm. bu dee benn fan sax yow arawal nga ko. léeg-léeg góor ni lay wër naa juróom-ñaari réew. waaw waaye fu ne dem naa fa waaye xam naa ni. laa ilaaha illallah xam naa ni coow li coow li yow la yaa mën yaa ëpp. li naan góor gu ma arawloo. dëgg la góor gu ma fondeloo. mu arawloo seen waa kër. dëgg li góor gu ma fondeloo. mu arawloo seen waa kër. waaye yaay xam nga nag astuce ba tey daa def ci table. dafa def ci table ndax dafa sedd te sedd bi. Mhm. xale yu góor yi seeni tànk day wow. waaw. lool te damaa bëgg xale yu jigéen ñi di ko nooyal. waaw yaay savon dafa ne ci table ji. Mm-hmm. savon boo xam ne savon noir la. Mm-hmm. savon noir day raxas tànk góor ba mu set. ba mu set waaye daa am savon boo xam ne savon liquide la. waaw xam nga kii boo ko gisee da koy teg bouquet fleur. waaw dafa ne bouquet fleur bii. da naan indil na ma cadeau naan indil na ma cadeau. <laughs> lii du cadeau de xam ngeen lii lan la savon la savon liquide la. Mm-hmm. bouquet fleur beeg li mu àndal lépp savon la. savon bii nag tubaarkal la xob la boo jëlee ndox mhm. nuggal ko ba mu nugg sànni ci sel ba pare dangay kuppati bi dangay jël benn fleur jël ko rek sànni ci ndox mi ndox mi daal di xëb mhm. bu ndox mi xëbee nga xot ci say tànku jëkkër ba mu des ab diir mhm. nga jël savon noir bi lii boo ko xoolee xam ne pour pied la. waaw yaay booy savon bii. te am na yu mu àndal sax nag am na yu mu àndal ànd naa grattoir ànd naa yëpp. ànd naa lépp ànd ak pant te bi dafa am chaise. Mhm. te chaise bi boo ci toogee tooge nu jigéen nga ciy toog. Mhm. xaayaan ku dégg séeréer ni mhm. sama yaay di ko waxee. boo xoojee tànk yi tubaarkàlla ba tànk yi yàbbi. ndax booy fóot sax tubaarkàlla da ngay def li nga xamante ni moom moo di weexal. weexal ba day yàbbi yére bu bu ñëwee boo fetee mu set. kii nag mooy weexal tànk. boo nuggalee sa ndox ba mu nugg mhm. sànn ci sa sel mhm. da ngay jël savon bi witti ci fleurs yi fleurs yi maanaam ci ngay dagg ndax fleurs yeeg xob beeg li ko ëmb lépp savon la lépp savon la boo ko daggee sànn ci ndox mi mu daal di xëpp nga xocc tànk yi ba tànk yi yàbbi nga daal di jël nag lii nga xamante ni savon noir la pire rek ko ko tax a jóg waaw nga bombalee ko sa jëkkër ay tànkam ba mu nooy nepp nooy nepp am na yeneen astuce am na ay grattoir am na yëpp grattoir am na li nga xam ne moom mooy mhm. liquide am na limbe yëpp lépp am na ci am na kon nag dama bëgg ñàkk a déglu rama docteuru jéeg gi ak tabaceena wóoru wéeréer la wóorul jéeg gi fagaru leen te fagaru ak crème pied am na aussi ay crème pure ñëw sedd bi yegsi na. Mm-hmm. te bi mu yegsee fëggul dafa yegsi dugg. dafa dafa daaj dugg. bàyyi leen xel ci savon bi nga mm-hmm. xamante ni mooy yëbbal ay tànk waaye bàyyi leen xel ci savon noir bi nga xam ne mooy bombu pied yi ba mu set. Mm-hmm. benn góor du yóbbu sa darab du yóbbu sa rido. ndax am na góor ñoo xamante ni bu ñu tëddee ak seen jabar seeni tànk day màtt seeni jabar. dëgg la savon bi dañ naan dañ leen mujj ne la solal kawas. dañ la naan solal kawas sa tànk yi ni may wokkee jaadootul. dëgg la te yaakaar naa loolu ci jigéen dama ne ko sànguwaale kii muus wala muus mu wala signal yaay xam nga loolu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal liquide bi ak savon noir bi nga xamante ni mooy baam bomb ay tànk góor ba mu set tubarkalla macha allah na ko xale yu jigéen yëpp wut ndaw uti dama ceena nee na ay yaayam rama docteur Dieg ji bëgguñu benn xale bu jigéen di jël ndaare ci seen daay déedéet kon nag numéro bi sànq defe naa ne jàll na 77 885 28 13 waaye sama mm-hmm. yaay dama leen di bàyyi rek moom tamit mu daal di xaabaa daal di wax lu ko saf wax lu ko saf mm-hmm. wax lu ma saf wax lu ma neex naa ne ci li nga xamante ni moom moo di huile yi nekk ci ci ci table bi waaw ndax da nga fay teg say huile différent huile yu différent laa fa mm-hmm. teg gis nga bi bu ndaw ne gis bi nga bi udd la mm-hmm. udd la mm-hmm. udd original mm-hmm. dama ne la kenn raxu ko waaye masha allah hmm? waaye la allah tubarkalla udd uh, bi uh, masha macha allah macha allah yaakaar naa ni uh, sama yaay li mu doon wax am na solo bu baax a baax a baax ndax dafa téye udd yaay booy yaakaar naa ni udd bi nga téye tubaarkalla macha allah du udd como te du udd boo xamante ni euh, udd udd demal ma ñëw la macha allah tubarkalla kon sama yaay dama lay bàyyi nga daal di dem ci udd yi ba mu nekk. waaw udd original dama la udd original. Mhm. udd bi nga xamante ne si macha allah kenn raxu ko. Mhm. dama la jekk. Oh. bu bëgg a xeeñ neex. yaay lii xam nga sax fu mu ma yóbbu. ci udd démb. waaw. xeetu démb la ma yóbbu. xeetu mhm. ci daal xeeñ. xam nga mag ñi. oh yaay lii garaaw na. xam nga mag ñi bu njëkk. dañu daan xeeñoo yu neex gongonaar. gongonaar waaye yaay loolu la ma jox. merci dañ cee def gongonaar yaay. udd original la mhm. kenn raxu ko. dëgg dafa am bu bu am bu weex bi. am blanc am blanc bi. gis nga udd original la. waaw te neex a def ci pochette. te góor da koy laal jigéen da koy laal. dëgg la góor da koy laal jigéen da koy laal. jigéen ju bëgg a jaamu yàlla bëgg a jege suñu borom. Mhm. jëlal musku taara bi. musku waaw góor gu bëgg a jaamu yàlla bëgg a jege suñu borom jël ko boo duggee ci internet bi boo ko tappee dinga xam kii li muy jariñ. te lépp lu ñuy indi fii rek macha allah. njariñ la waaw. balaa muy dëkk sa loxo la ñaanal daal koy laala. donc waaw foofu loo fa ñaan yàlla. déedéet da nag da koy jël sax def ko ci parfum liquide yi. Mhm. dilie daal di koy dilie jël bii rek def ci tuuti rek pompe ci sijaada yi. Mhm. pomp ci ci ci ci ci jàllaabe bi muy lii pomp ci euh, kiyam kurus gi mhm. am na góor ñoo xam ne bu fajaree dañu jàng ay xasida wala ñu jàng seen teg seen kaamil ak ah. yooyu nga fomp ba mu set morso bi nga koy fopp euh, kiiwe da nga ko ciy pomp fomp kaamil bi léegi ci kaw gàttal yaay booy li nekk ci table ji yëpp présenté nga leen. waaw léegi jéeg boobu léegi jéng dafay war a jeex. dafay war a jeex jéng tey lañ leen fi tegal. dañoo taxaw pour waxtaan ak góor ñi ñu bàyyi jéng bi waaye taxaw waxtaan ak jigéen ñi pour ñu bàyyi xel ci li ñuy wax ba seeni borom kër duñu jéng. dëgg la. góor ñi nañu delloo buum ca mboy mboy ma. Mhm. nañu fàttaliku démb. Mhm. démb weesu na waaye lu mat a fàttaliku la lu mat a la. Mhm. te bu ñu fàttalikoo démb du ñu juum. maa xale bi ci bi nga takk indi ko ci biir kër gi. macha mhm. allah. Mhm. teg ko ci heure ak temps. donte da ngaa jéng sax ndax da gis ca xale ba loo gisul woon ca kee. dëgg la waaye jarta jéng. ndax ëllëg a tax. te yombal xiyaam dafa am de. te kenn ku ci nekk nag. liñ naan càmm gu ne dañ la laaj. moo doon càmm waaye damaa bëgg góor gu ci ne. Mm. suñu borom gëm nelaw. maa la boo lëggee rek boo jéngee boo yeewoo di direeku. sa benn am na góor ñoo xam ne moom seen benn loxo bi ak tànk benn tànk moom lañuy ñuy ndax dañuy jéng ba loxo bi day laal suuf. ndax jeng sama yaay booy dara jaru ko fi wax na lépp macha allah tey nag ñu wax ci jeng mhm. suñu waxtu doon noo dab mhm. bàyyi la rek suñu waxtu dab nañu allah di santaat ñëpp rek di gërëmaat ñëpp di di di di di wax waxaat du bari wax mhm. di wax li nga xamante ni si toujours bu may tëj loolu laay tëje di jéggaluwaat ñëpp lu ñu fi mopp rek ngeen xam ne ni tamatul lu ñu fi wax mu jub te neex nit ñi ñu xam ni suñu boroom la du ci ñun macha allah di leen sant bu baax di leen gërëm. Mm-hmm. waaye di leen wax ni ku bëgg ci yu baax yi nàkk yeeg gowe geeg misk taaraabeeg yëpp ku ci bëgg. contacter Ramatulaay docteur Dieg gi. 801 41 56 ma defanteeg yéen yu baax. Mm-hmm. macha allah wala ngeen daw. Mm-hmm. dugg ci sama TikTok. Ramatulaay docteur Dieg gi bu ko defee di ngeen gis numéro bi di ngeen gis bagage yi. fépp foo leen nekk rek ma livré leen ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam jërë ngeen jëf am na solo am na solo ah, sama yaay nee naa la heure bi toogee rek day wax loo xamante ne yéen bu ko déglu waaye lii lañ leen indiloon ci émission bu mag bi le di émission jëljëli waaye nag du ñu yem ak yéen fii nee naa la fin d'année bi lépp saa su nekk ba keroog fin de fin d'année bi di di jeex tubarkal la ba ñuy tàggatoog 2023 ci tàggatoog jàmm saa su nekk rek sama yaay day innové jëljëli di indi lu bees tàq loo xam ne da leen di jariñ kon nag ñàkk seetaan émission bi wóorul ne ñëpp daw di toog di xaar Yathiourou Dialdialy bu ko defee ñu di ko seetaan jërë ngeen jëf lii lañ leen indiloon tey yàlla na leen yàlla defal jàmm defal ñu ko sotti ko ci suñu réew defal ñu jàmm ñun ñëpp defal ko suñu njaboot beneen émission ak beneen thème incha fii ci Sénégal 7 jërë ngeen jëf